laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa arshida assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa mu boole ñu jéggal ñu bëgg a àndaat ak yéen comme ni ñu ko baaxee defee ci ayi bés bu ne doon ànd di jàngatandoo ak yéen téerab sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde mu nawwiru sudur te ñu yemoon ci buntu bi nga xam ne moom la sëriñ bi tudde faslun fil kabairi muy bunt bi nga xam ne day wax di ñu leeral bàkkaar yu mag yi nga xam ne war naa bokk ci li ñu war a gën a ba ñu àndoon ci ak yéen ba suñu bind bi mujj ñu taxawoon ci bàkkaar yi nga xam ne mooy seede ak neen wala ya nga xam ne moo ci aju yooyu yëpp leeraloon nañ ko Euh, suñu bindub tey nag fi muy tàmbalee mooy ci bayit bi sëriñ bi di wax ne zinan njaalo liwaatun ak euh, liwaat muy jaxasoo góor ak góor xussaa jagleef na ko faqat dong bi furujihim ñeel seen pey ya faman xam ne maala jeng na ilayha ilayhima jëm ca ñaar saqat ne na kooka day rot na ne ñaari bàkkaar yi nga xam ne moom la tudd fii de muy njaaloo ak li nga xam ne mooy jëf jëfi luut muy ànd góor ak góor ne na ñaari bàkkaar yooyu de ñaari bàkkaar yu màgg la yoo xam ne pay moo ko jagoo mooy kanam moom mooy li nga xam ne moo ko jagoo kon bàkkaar yooyu képp koo xam ne danga koy def foofu rek nga ko mën a jaare muy ci pay kon bàkkaar yooyu pay mooy ki nga xam ne moo ko jagoo di ñaari bàkkaar yoo xam ne yu war a moytandiku la euh, njaaloo nag bu ñu ko waxee mooy lan mbokk yi mooy euh, góor jaxasoo ak jigéen joo xam ne lewu ko ndax takku ko ci charian Euh, takku ko ci sariya saa boo xamee ne góor jaxasoon ak jigéen joo xam ne léwu ko takku ko ci sariya bu boobaa loole mën nañ ko tuddee njaaloo njaaloo nag doon loo xam ne lu araam la loo xam ne alquran wax na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci waaye suñu borom bi subhanahu wa taala moytandikuloo ñu ko bu baax a baax a baax a baax ba bi nga xamee ne mi ñu koy moytandikuloo sax waxut Euh, bu leen ko def waaye bu leen ko jege sax la wax bu leen jege sax njaaloo euh, ndax mi ngi wax ci alquran ne wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabila njaaloo de bu ko jege ndax jëf ju bon la joo xam ne jëf ju ñaawa ñaaw la joo xam ne ab jullit war na koo moytandiku waaye ab euh, jullit war na koo daw waaye ab jullit war naa moytandiku lépp loo xam ne moo koy tàbbal ca di njaaloo njaaloo nag dafa am ay euh, mbir yoo xam ne mbokk yi moom moo koy euh, moo koy moo koy fonde te loolu nga xam ne moo koy fonde nag suñu borom subhanahu wa taala moytandiku loo nañu ko ndax su fekkee ne moytandiku nañ loolu mën naa am duñu tàbbi ca bàkkaar bu màgg boobee ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ba tey ne قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi ne leen nañuy damm seeni gis tey ñi moytandiku waaye ñuy wattu di sàmm di aar li nga xam ne moo di seen pay foofu li ñu fi bëgg a leeral rek mooy euh, njaaloo nit ki euh, bu fekkee ne dafay dem bu bëgg a njaaloo ak euh, koo xam ne léwu ko la muy jëkk a def faw dana ko xool te bu ko xoolee xool ba nga xam ne ci la koy xool ca xool boobee ca lay jaare ba mën a duggante ak moom ba jaare ca di waxtaan ak moom te loolu lépp saa bu demee ba am bu boobaa dootoo mën a sàmm sa bopp waaye boobaa la nga xam ne mooy bàkkaar boobee la suñ borom doon bañal ba lay wax ne la deel damm sa gis te bul di xool ñi nga xam ne ñooy jàmbur yi jigéen yi nga xam ne Euh, yoonu l'islaam ak chariatul islaamiya mayu la nga xool leen euh, del damm sa gis ci ñoom saa boo xamee ne nag loolee nga xam ne moom la la lislaam digal te alquranu karim digal la ko defoo ko bu boobaa loolee mën na laa yóbbe ci bàkkaar boobee nga xam ne moom lañu suñu borom bi subhanahu wa taala di moytandiku loo yonente bi saa sallam di wax ne euh, man aw saribal xamra nazaallahu minhu imaana kama yaflahu al insanu alxamisa min rasihi euh, bépp jullit boo xam ne euh, njaaloo nga ak jàmbur bu jigéen wala nga naan sàngara yonente bi sallallahu na yow rucc nañ ak ngëm yàlla ci yow comme ni nga xam ne noonu la nit ki doon sole ab yére ni mu koy summee jaarale ko ci boppam ba mu génn ne na lool noonee la ñuy ruccee sa ngëm yàlla kon képp koo xam ne euh, da ngay jëf-jëf ju mel noonu muy jëfi jaaloo wala jëfi naan sàngara na nga xam ne yow moom sa ngëm bu jeexul tamit mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax ndax lan ndax bàkkaar yooyu nga xam ne mooy njaaloo ak yu ko nuru dafa doon bàkkaar yu màgg yoo xam ne jullit bu ne war na ko moytandiku ndax day tax nit ki tilim waaye day tax nit ki takk waaye day tax nit ki sori suñu borom bi subhaanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax yonente bi waxaat ci xadis laa yazni azani xiina yazni wa huwa mu'min euh, ki nga xam ne day daf ne ab jullit la jamono ja nga xam ne ma ngay njaaloo ak koo xam ne lewu ak jàmbur bu jigéen ba nga xam ne sequt ak moom dara yoonu lislaam daganalul seen diggante nee jamono ja nga xam ne ma ngay def loola moom na xam ne jamono joojo moom nekkatut ab jullit xamut leneen lu mu nekk nag waaye jamono joojo moom nekkatut ab julit Euh, mu doon loo xam ne wattuloo gu ñu ko euh, lislaam di wattuloo ak bëgg nit ñi di ci euh, sàmmonte ak seen bopp moo tax lislaam teg ci mbugal yu diis a diis a diis yoo xam ne su fekkoon ne réew mi ñu ngi attewoo ci li nga xam ne mooy charia saa bu ko nit defee buñ ko tegee ci kawam atteb lislaam boobee mën naa am loolee mën naa yar ay moroomam yoo xam ne naran nañ ko def wala sax ñu ko doon def te feeñu ñu yooyu yëpp mën na caa jaare ñu bàyyi ko moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma miatu jalla wala taaxuzukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir wala yazhar azabahuma taifatun min almuminin suñu borom wax foofu ne li nga xam ne mooy njaalookat bu góor ak njaalookat bu jigéen de saa bu Ah, dañoo njaaloo nee na na ngeen leen dóor ku ci ne téeméeri yar na ngeen leen dóor ku ci ne téeméeri te bu ngeen leen dóoree téeméeri yar ba pare bu leen nungooti seen seede bu leen nungooti seen dara bu leen seqati ak ñoom dara su fekkee ne gëm ngeen yàlla ak bis pénc te su ngeen leen di mbugal na ngeen leen yóbbu ba ca pénc ma jullit ñépp teewe ko xam ne ñaar ñii day dañoo xëtt li nga xam ne moom la sariatul islamiya teg waaye dañoo njaaloo dañoo def loo xam ne sariya daf koo araamal waaye daf koo aaye su ko defee loole ab yar lay doon waaye ab jàjj lay doon ci ñi nga xam ne ñoo teewe jataay boobe waaye ñi nga xam ne ñoo teewe bugal moomee nga xam ne moom lañ teg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo xëttoon yoonu lislaam woowee njaaloo nag doon loo xam ne e, dina saxe ci ay mbir e, yoo xam ne saa amee ñu saxal ne kon ñii dañoo njaaloo Euh, bokk na ca ya koy saxal mooy euh, góor wala jigéen saxal ne moom mii dafa njaaloo ak góor sàngam wala euh, jigéen gi jigéen gi saxal moom mii dafa njaaloo ak góor sàngam wala góor gi saxal ne moom mii dafa njaaloo ak jigéen sàngam loole mën naa saxal ak njaaloo ñaareel bi itam ñeenti nit ñu maandu seede ne da gis na ñaari nit muy góor ak jigéen ñoo xam ne buumuk sëy doxul seen diggante ñoo jaxasoo sëy bu boobaa loola itam njaalo lañ koy tuddee waaye nag na fekk boobee ñu koy ñu koy wax ñoom ñeent ñooñee kenn yëgow ci ak sa moroom ñoom ñëpp dañ cee dalandoo rek gisandoo ko su ko defee bu boobaa loola itam dinañ mën a saxal ne kon njaaloo am na ñetteel ba itam saa boo xamee ne jigéen joo xam ne ab jàmbur la amut borom kor amut ab sàng jamono ja nga xam ne ca la ab jaam daan amee euh, boo xam ne moo war a séq moom ba loola juddoo yooyu yëpp bu fekkee ne amut saa bu euh, jàmbur bu jigéen euh, lu mel noonu feeñee ci moom muy ab ëmb bu boobaa loola itam dañuy saxal ne ci njaaloo rek la tukkee kon yooyu yëpp benn bu ci sax dañuy xam ne loolu mën naa saxal ne kii dafa njaaloo ba tax loolu dal ko kon njaaloo doon na euh, mbir moo xam ne euh, jullit bu ne war na ko moytandiku ndax euh, lislaam soññ nañu ci waaye moytandiku loo na nañu ko bu baax a baax waaye it bàyyiloo nañu ko xel bu baax a baax ndax lislaam dafa fonk aw xeet dafa fonk aw askan te bëggul ay askan di jaxasoo ci jaxasoo joo xam ne Euh, lislaam euh, daganalu ko moo tax jullit bu ne war cee bàyyi xel bu baax a baax a baax kon loolu benn la ci euh, bàkkaar yi nga xam ne pays daf koy def ñaareel ba ci bàkkaar yooyu mooy liwaat liwaat buñ ko waxee moom mooy jëf ju bon la joo xam ne nitu luut ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo ko jëkk a def ñoom ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ko jëkk a def yonent yàlla luut nit euh, nit ñi nga xam ne ñoom la moom la suñ borom yónni woon ci ñoom ñooñu ñoo daan def jëf ju ñaaw ju bon joojee euh, bu ñu ko waxee nag mooy lan mooy nit ki euh, ku góor ànd ak góor ni moom ci buntu ginnaaw wala góor ci boppam ànd ak bàyyi ma yooyu yëpp saabu saxee loolee mën nañ ko tudde li nga xam ne moo di alliwaat muy Euh, jëf jëfi euh, nitu Luut mu doon bakkaar bu bon bakkaar bu mag boo xam ne jullit bu ne war na koo bàyyee xel jullit bu ne war na koo daw ndax bokku na ci li nga xam ne moo alagoon euh, nitu Luut ñooñee la tax suñ boroom wàcce woon ci mbugal wàcce wàcce woon ci ñoom mbugal loolee la ko waraloon mooy jëf ji nga xam ne ñoom lañ doon jëf muy jëf di bon góor ak góor di ànd wala góor di ànd ak bàyyi ma yooyu yëpp bokkoon na ci laleen tegoon ay alkande waaye la leen tegoon buggoon mu méttee méttee métti nga xam ne lislaam ak yërmande ji nga xam ne am na ko ci doomu aadama teewut ki nga xam ne mooy jëf-jëf ju mel noonu la ca lislaam santaane mooy moo xam mu sangewu moo xam mu ñàkk sangewu mooy mu am soxna wala mu ñàkk koo am bu boobaa kookee la ca lislaam digle rek mooy dañ koo war a dañ koo war a rey dañ ko war a rey te yonente bi saa moom moo wax loole ci ab xadis moo ne man wajatumuhu yaamalu amala xawmi luutin faqtuluhu alfaaila walmafuula bi képp koo xam ne fekk ngeen ko muy jëf jëfi nitu luut nga xam ne ñoo daan jaxasoo góor ak góor yonente bi saa sallam ne na ngeen ray ka nga xam ne mooy uh, ka koy def ak kan koy def ñëpp na ngeen leen rey ñoom ñaar ñëpp na ngeen leen rey ngir lan ngir bon goo xam ne loolu bon na ko ak yàq goo xam ne mën na koo yàq jamono waaye yàq goo xam ne mën na koo yàq li nga xam ne moo di ab euh, société muy loo xam ne bàkkaar bu mag a mag a mag boo xam ne euh, nit ku ne war na ko daw jullit bu ne war na koo daw euh, képp koo xam ne doomu aadama sax war nga koo daw rawatina nag li nga xam ne moo di ab jullit te alquran andil ñu ci ay euh, mbir yu leer a leer yoo xam ne ci lañ war a sukkandiku teg suñu tànk ñenn ci boroom xam-xam yi nag wax ne euh, ki nga xam ne moo jëf jëf jooju nan lañ ko war a rey dañ ko war a raj mu mooy dañ ko war a suul di ko sànni ay xeer ba ba muy faatu ñii ne dañ ko war a xarq dañ ko war a lakk loolu nag liñ ciy tegtaloo mooy Xaalid ibnul Walid am na dëkk boo xam ne fa la nekkoon ba mu fa nekkee gis fa ay góor di jëf-jëf ju mel noonu dafa bind ab leetar abu bakar ne siddiq wax ko ko bi mu ko ko waxee abu bakar ne siddiq woo ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi di ci musaawara ak ñoom ndax euh, suñu borom subhanahu wa taala moo digaloon yonent bi ne ko del musaawara ak saxaaba yi kon moom mi nga xam ne mooy abu bakar ne siddiq boo fi wutoo yonent bi kon lu muy def mën na cee diisoo ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi moo taxoon muy diisoo ak ñoom ci bi nga xamee ne Xaalid ibnu Walid bind na ko lettre boobu bi mu diisoo ak saxaaba yi euh, euh, Ali ibnu Abi Talib moom daal di génn xalaatam ne moom dafa gis ne ñooñe dañ leen a war a lakk dañ leen a war a lakk kilo la Abu Bakr Siddiq bindaat ab lettre yónnee ko ki nga xam ne mooy Xaalid ibnu Walid euh, ngir mu wéyal ci ñoom àtte boobee kon loolu li muy tegtale rek mooy day tegtale màgg goo xam ne bàkkaar boobu màgg na ko ak moytandiku goo xam ne ab jullit war na ko moytandiku bàkkaar booba ngir euh, ñaawteef yi nga xam ne moo ci ne waaye ngir bon gi nga xam ne moom la bon waaye ngir yàq gi mu mën a yàq nit waaye ngir yàq gi mu mën a yàq li nga xam ne moo di ab société moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne wa luutan is qaala li qawmihi ataatuna alfahishata ma sabaxakum biha min ahadin min alalamin innakum la taatuna rijala sahwatan min duni nisaai bal antum qawmun musrifun yéen sama nit ñi de yéen day yéen a ngi def aw ñaawteef woo xam ne kenn mësu leen cee jiitu ci ba jamono sosoo ak léegi kenn mësu leen a jiitu ci ñaawteef yu mel nii yéen yéen a ñi a def ñaawteef yi yéen yéen a nga xam ne yéen a jëkk euh, suñu borom daganal leen jigéen ngeen lànk ko fa dem di sëy ak euh, góor ak góor yéen yéen yéen a a def ñaawteef yi waaye yéen a ko jëkk euh, ko jëkk a indi fii ci àdduna waaye yéen ko jëkk def te muy lu bon bon loo xam ne lenn dong ngeen ci jublu mooy yàq te yàq googu ngeen xam ne moom ngeen ci jublu lenn lu du leen ko juróo lu dul alkande ndax euh, alkande ja mujj na wàcc ca seen kaw ñoom ñëpp kon loolu la leen ko sabab ak la leen ko teg mooy ñaawtee foofu nga xam ne moom lañ doon jëf muy euh, góor ak góor di ànd wala góor di ànd ak bàyyima wala yu demee noonu yooyu nga xam ne ay ñaawteef la yoo xam ne al alquran dañu ko moytandikuloo ñoom ñu lànk wéy ca loolay di ko def loola tax suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon ci ñoom bugal mu tara tara tara tar moo xam ne mujj na euh, metti ci ñoom lool kon loolu itam bàkkaar la bu màgg bu mag a mag boo xam ne jullit bu ne war na koo moytandiku waaye jullit bu ne war na koo euh, bàyyi xel xam ne lu suñu borom subhanahu wa araamal la waaye lu bona bona bon la loo xam ne mën naa yàq ab euh, société kon ñaari bàkkaar yooyu ay bàkkaar la yoo xam ne euh, li nga xam ne mooy pëy moom mooy moo ko mën a jëf kon nit ki dafa war a sàmm li nga xam ne mooy pëyam ba du ci njaaloo waaye du ci def lenn loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa di aaye moo tax mu ne fa haasihi yii mu la tuddal yawun fukk la ak juróom benn minal kabairi ci ay bàkkaar yu mag daaxaa na nga ko bàyyi bi biatahu lépp la nga xam ne jaay nga ko bi baa irin déet muy aji làmb euh, lépp loo xam ne jaay nga ko ci euh, bàkkaar yu bon yooyu bàkkaar yu màgg yooyu nga xam ne ab jullit war na koo moytandiku loole lépp war nga koo jaay ngir jaay ko euh, jënde ko ak njub waaye jaay ko jënde ko ak topp yàlla mooy li nga xam ne moo lay musal waaye loolu mooy li nga xam ne moo lay jariñ kon loolu fukk la ak juróom benn ci ay bàkkaar yoo xam ne julit bi war na ko euh, moytandiku ngir màgg goo xam ne màgg na ko waaye ngir euh, mbugal moo xam ne mën na koo yeb euh, jullit bi waaye ngir alkande joo xam ne mën na koo yóbbee ki nga xam ne moom moo koy def moo tax mu ne falaa tamil bul jeng ilaa layaadin jëm ci dara min ha ca bàkkaar yooyee wa sunha nang ko nanga nga ñoŋal sa bopp na nga ñoŋ fii ka ci yow jumlatal asraar yi bépp mboolem bàkkaar yu bon yooyu bàkkaar yu bon yooyu yëpp ne na nang ci ñoŋal sa bopp moo tax mu ne falaa tamil bul jàng ilaa la yaa din jëm ci dara min haa ci moom wa sunha na nga ñoŋal sa boppu fii ci yow jumlatal asraar yi mbooleem ñaawteef yooyu kon su fekkee ne bëgg nga mucc bàkkaar yooyu na nga ko xam Euh, te jàpp ko waaye di ko moytandiku foo toll te moytandiku di ca tàbbi waaye saa boo demee ba yàlla nattoo la nga tàbbi ci benn ca yooya na nga def sa kem kattan tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala ngir mu man la ko jégal kon ñu ngi tuub bu baax te jégglu di taxawlu foofu di wax ni in uridu illa al-islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh